nit duñ ko mafé duñ ko yaasa duñ ko makaroni duñ ko petit pois duñ ko nambé nit njariñ président Wally Ballago sek président jàmm rew man Omaro Mané depuis 1960 Sénégal am indépendance wal jojo ndjay taxaw def discours wu rëy wam def déggoon na tay mënatul a xaar le 4 avril 1960 fuma jaar dok bu mu jàmm dal di joxe ne kaddu gi birna Sénégal am ngeen sen indépendance bis ni tay man Omaro Mané depuis le 4 avril 1960 Sénégal am indépendance ak way kat bu yewu ci rew mi buy tee micro ñela mat mam di dundu ak ñi dem yalla seen suuf sedd ci seen kaw ñela mat bay ñi dundu ak ñi dem yalla suuf sedd ci seen kaw ñela mat ndi jaay ak mat ba ci ñi nga maasel ba ci ñi say rak kat masta amé ndariñ ni ko amé maa ko wax man barke Cheikh salou fadi jaxate dama ne waykat masta amee njariñ ci Sénégal ni ko Waly ko Seck amee président jàpp réew waa lii nag sama engagement personnel la man maa ko wax te bu ma ñibbisee ndax maa ngi ne aéroport di dem London Angleterre laa jëm moo ma fa yóbbu visa deux ans la ma dóor ñu fas yéene dem liggéey dellusiwaat ci réew mi jàmm ak salaam barki démb moo Ndiaye matul 40 jours laa jóge Italie balaa Italie doom de Paris la woon toogaay ndax moom bay ànd ak moom da ngay nekk en activité da ngay liggéey da ngay liggéey yi gars yi tal doo ko tal ay pexe ki ay manigaase ki complot ak i yëf ak di wër di fen di noppalu teg macaroni bi ba rek éteke di lekk di fen di noppalu booy ànd ak président Wally Ballago Seck doo ko tal ndax da ngay tal li nga xam ne muy liggéey ak réalisation maa ngi ne Angleterre laa jëm su ma nee Angleterre nag sama yaram day daw ndax Angleterre tubarkalla macha allah. daf ci bari ay dëkk yoo xam ne Canal plus Horizon moo ñu boole woon. Angleterre gi ma jëm tey bari na ay dëkk yu fa nekk yoo xam ne Canal plus Horizon moo ma boole woon ak ñoom Everton Arsenal maa ngi nuyu sama xarit ba Thierry yi oh David Beckham Liverpool Manchester City Manchester United yooyu dëkk nga xam ne tey man jàppoon naa ne ba dinay tukki maag ñoom ci canal ci canal horizon la ñuy yem canal plus Tottenham Tottenham yooyu dëkk nga xam ne tey le président Waly Balago sek dok boom sama diggante ak ñoom canal tàggoon naa ak ñoom tay bis ni tey yooyu dëkk ndax maa fay demal sama bopp maa fay rombal sama bopp maa fay liggéeyal sama bopp daan fa sama doole jël fa sama wërsëg dellu soit te yàllaa ngi yonent bëgg jëmmam jiyee ko am président Waly Balago sek président jàmm réew mi mi ngi ci social mi ngi ci mbaax mi ngi ci sutura mi ngi ci hôpitaux yi mi ngi ci prison yi mi ngi ci ay mbokam mi ngi ci ay mbokki jàmm dama ne 1960 bi amé en indépendance ak way kat bu ma sa yor micro ci réew mi président walu Ballago Seck lépp njariñ du ma yam ci wax ko boko fi dem ma ngi dem Angleterre liggéeyi ma ngi del siwaat duma yag fek fan yi néew ma ñewat bu ma ñewé je convoque toute la presse sénégalaise nañu xaar ci buntu aéroport bi ma wax len nan la wali Seck ëppee ndariñ kuma sa way ci Sénégal Ah. <laughs> mais père. Mbaye. ancien ancien manager mais manager yi. temps yi manager yi temps yi liggéeyatuñu. lu tax mbër yi bëri nag quoi. ah. lu tax mbër yi bëri. ah oui waaw waaw ancien ah, moom mooy loolu bëreetuñu de ah. temps boobu liggéeyatu leen moom liggéeyatu leen de ah. <laughs> xamul sax lu muy laaj moom. xanaa da ngeen a bëgg ana mais ana moom jaaxal ah. taa xam nga kañ la faawoon taa yi nga yore woon andi woon loo jékki-jékki andi woon loo beneen ko ma nga andi Balla Gaye jax waay loolu loolu loolu na laa ilaaha illallah andi woon loo daanu andi Balla Gaye Balla Gaye daanu mais ana woon loo nag léegi yéen a ngi déggante <laughs> ay wax la laa bëgg léegi. man aw baawa jaar. aw baawa. aw baawa yow lu wër la di aw. fay xamul aw baawa de xam nga aw baawa <laughs> aw baawa xam nga aw baawa. may tëj tax ma. Mm. mais mais ana euh, di euh, di ñëw Gambie pour sukkali lamb fii. Anda ak sa Aziz Ndiaye ànd ak waa lamb yëpp. ak Luc Nicolaï. ak Luc Nicolaï. léegi Luc nag dafa mel ni sa xarit la. Luc moom sa waay la. Péticola. Hmm, ah ko cent franc. benn don mi. moom a jaay